girdi <laughs> geç geç gir gir gir gir gir gir böyle gir şöyle gir gir gir gir naajal gile bu jarlo gile ko sakal taxawo galaw jaajal gile le se sisel gil gil be se sisel gil gil jan gelele o bay o bay naam jaajal gile gile ko sakal taxawo galaw jaajal gile le se sisel se wi tax gil gi sa sal gile gil jëlee la voilà ki jëlee. ah ñanku yaa béyee ndogu tey. waaw kon lii rëy na di. pour bi gisoo ba banaana yeeg mooy sa xole bàyyi sa topp baatare. ah déedéet maa yor kër gi mais boo demul maay débloqué ah nijaay nag bàyyi li ngay de waaye ñanku foo jëlee lii la pour. toogal sonn naa nag de. masa coono da ngay da ngay da ngay maçon yi ñu ngi dee. maçon yi lu leen fay jàngal. ah ah yow loo jot ak maçon. damaa xëy tey damaa ah! xëy jekk man la nijaay ñànku mi xel mee ni commencé soo laale collectif bi commencé soo laale collectif. Eh, waxuma loolu dama ne. waaw damaa xëy dem liggéey ma neebal. liggéey waaw. maa dem dama doon ma neebal xolo may ay ay bilig laa doon lañ. xool xam nga tournal yu bon ah tournal yu bon ah loolu lépp loolu ay vilig la. yow ñàkk ku dee eh, la nekk. yow mel ba mosoo gis tuuti fay ñeenti. ñeenti ba lépp ay bilik waa ci ci kaw waa ji ne ma yow dama laa yërëm ma ne ko man góor yàlla fiil laa. mais ñaax ah, ma bàyyi ma journée ci am vingt mille francs ba jënd ci sa yii. fan nga jëlee xaalis bi yëpp ñànku. waay journal yi wu vingt mille. te vingt mille yi teg na. Eh, lii lii lii lii lii ah, lii lii tulaa la tulaa lii. Ah, trente mille la. waaw lii tulaa man man man ma kaa jox ma ne ko cent francs rek munoo ma jëlee lii ma ne ko est-ce que dinaa ci am cent francs yu bari munoo ma bëree bari te wax la dëgg de ba ma demee ma ko joxee waa ji fii ah dama kaa jox mu jox ma nii ne ma heure boo bëggee cent francs ñëwal ma jox la. nii xel na nga ko def tournant bi yëmbaloo fee ba ngeen koy bind. ba pare 30 000 ci manœuvre bi. fan nga ko gis waaw léegi ana beneen beneen beneen 100 francs bi. moom laa jox kooku jox ma lii nee na dafa ma soxlaa 100 francs ma dem mu jox ko yow nag dama nga def rek jarul enquête bu bari bi. waaw baax na ah, kon ah, naa ma yegg te defar ndogu te. waaw mooy yàlla yow yàlla fu ko neexee jaar. waaw jëla basa gi laa ko balaa sama paati ñëw. ah ma ne jëla basa gi laa ko balaa sama paati ñëw. non non yow dama nga jëli basa bi nga naan ko. damay ni ko damay ni ko. ñaan ko ma mayee ni basa gi. suba ba léegi fi nga yend war naa xëy dem dañ dañ indi xaalis dama nga indi ma saa nga laal ko fi. man du ma sa morom dama jël sa sama xaalis. dama nga jënd nga laal fi. yow yow yow yow yow yaa bëgg lu yomb rek lépp maa koy def rek. oui. la la la la ka fay la ka fay. la la la la la la la bay jaxate di wax dëgg la ñàkk a bon ci waa ji baax la la xoolal dafa toppatoo ma njëganaay waay man dama sa morom nag taxaw taxaw ne waaw ñaan ko yow lii la la nag taxaw fe kii yow eh boy gaar ah ñaan ko waay waaw doo nga toog fe nga jël sama place dama toog fe eh dama indi deret de waa ñànk na dangaa waroon sangu ba pare soog a ndogu. déedéet heure bi des na tuuti. Eh, ba jàmb rek. xool yow toogal fii fii ci man <laughs> waaw waaw amee na boo kontaanee danga naan ñaw xoolal fa heure bi jot des na ndox bi teg naa ko léegi mu baax. waaw waaw soxna si du kii la moo ngi nii kii kan kii kan lu xew. eh xoolal xamal laa la bëgg xamal bul ma bu ma bu ma taxawoo musiba dégg yow yow eh. waaw sëñ bi may ma ah. taluma ay nuyoo est-ce yaa may dégg bu baax ah. yow est-ce que xam ma ba nga naan ma dee nuyoo waaw xaar xaar xaar xaar xaar xaar léegi xamalal léegi kii xaw eh saxaay su ngi nii saxaay ah ah xolo saxaay jox kii eh jox ko jox ko ah, eh, laajuma nga sa semise vétéran bi yow nga dawloo ci kon magum jëmm wóor fekk xamoo xaalis sama yaay ma yónni yow yow yow yow yow yow ba nga yow. nit xaw ma ñàkk laa. si jàngiw ma loo doon. si expliqué ñu ñun ñu xam nu mu demee. yow kii fekk ma ma taxaw si bopp koñ bi. bu ko sama yaay yónni ma ma dem retiré jël ko xaalisam. taxaw di ci fo di snap rek mu ñëw rek këpp xaalis bi taw. damaa ba. mën a yow yaa ko defee boo ko fee damaa daw eh, taxaw. boo ko taxaw. yow nii moomoo eh bi nga wàccee sama daraja li ma tëj ci suuf li ci kaw kon eh, gis nga lan la seen discours bi man intéressé wu ma sama xaalis damay ñibbi ndax ndogu leen mu jot. defal naa ko rek defal naa ko xaalis nga ne da ngeen cee def seen e ba jën. ah d' accord xaalis bi lekkoogul soxna si defal naa. man lekku naam lekkuwul sama yoon ah, nekk. jël ma sama téléphone sama xaalis. waaye ah, loolu bu ko tudd jox ko lii rek. Ah, eh jox ko xaalisam jox ko xaalisam jox ko xaalisam jox ko xaalisam na ko moom eh jox ko eh, na feneen. ñun xamuñu woon nu mu demee ñànku dafa ñëw ne dafa journalier woon ñu fay ko xaalis mu ñëw jënd ci lii man maa ngi nii 10 000 francs rek la ma joxoon. mi ngi nii teel mais yéen ban xel ngeen yor journalier 30 000 francs. day day fen dafa beneen dafa ko pass ko boo ko mënee dem jënd ko kenn xooñu tey. lii yaa génne beneen 10 solo nañu tolof waxuma ñànku ñaa ko investir la rek nga eh, xam eh yéen laay waxal sama beneen dix mille na génn dama yàkkam solo si defal nang li ngay wax yépp dëgg la ñu d'accord nañu ñànk lu mu def bu dëgg du yoon mais nag loolu rek la fi ànd lii ak lii ñun nag yoruñu leneen ndaw kii kii da lay ñuus de jëlaale mburu jëlaale mburu

yow da nga naan ndoxu tàng kese man ma koy naan ndoxu tàng indi naa ma naan ko noonu fi toll nii li ma daw lépp ndox. yow bon na yow eh, kon waxu fixé ma regard te bul xeeb yow fixé ma regard rek yow nga xool ma yow yow yow nit nga yow ah yow yow yaa ah, ne nii xam nga yaa ngi jooy de bàyyi ma eh, xam tuuti xam nga a toog naan man mii maa ñàkk jom nga di ko wax di ko répété yow. te xam yow ku ñàkk jom nga yow. acca waxal. man nii maa ñàkk jom. waxal répétel. man nii maa ñàkk jom. waxal. man nii maa ñàkk jom. rép na gaaw. man nii maa ñàkk jom. na gaaw.